ngeen jëf ami cher internet bu Sénégal Buzz 221 mbokk yi ñu ngi leen di nuyu rek saa su ne nañ leen daan nuyoo fii ci Sénégal Buzz 221 nu ñu koy defee leen dalalal ay ndaanaan di leen dalalal ni yéen a ngi leen xaar fii ci Sénégal Buzz bëgg leen a gis waaye ni nga xamante ni tamit moo di injustice lépp loo xamante ni nag réew mi ngi koy bëgg a teg ci réew yoon Karim Xurum taxaw nag ngir di ko xeeñ ngir bañ ko ci yi tey moom lañ leen dalalal fii ci Sénégal Buzz 221 dañu koy bàyyi rek mu ndoog bokk yi ngi le frère. waaw sëriñ bi bu baax a baax. Euh, la la jégalu ah ci li ma la xaarloo xam rek euh, di nuyu suñu mbokk internet yëpp. Mhm. Euh, ñaan yàlla rek bañ fa lu ñuy xebe salaamaaleykum. macha allah asalaamaaleykum loolu leen la nuyoowee rek waaye comme ni mu ko waxee rek di ñaan yàlla di bañ a wax lu ñuy fii xeebee ñu dooree suñu waxtaan ak li nga xamante ni tey xëy na mooy anniversaire bi nga xamante ni génn ngeen yéen ñëpp démb màggal ko mu di le juin naka ngeen gisee li nga xamante ni tey moo di taxawaayu 23 juin. waaw déjà moom 23 juin mooy comme li ñu si wax rek xam nga boo seetee ba ñu ba nga xamante ni vraiment euh, gis nañ ni def na fukki at ci ren mm-hmm. jàngat yi ñu ci am mooy boobu léegi lañ doon xeex la ñuy xeex et que une partie bi àndoog ñun àndoog ñun di xeex ba ñu jëlee pouvoir bi aussi dañoo war askan bi mm-hmm. waaw donc loolu daal li ñu mën a ba léegi Sénégal depuis 60 ans lan la ñuy jooy ñu ngi jooy eau potable ay village ñu ngi koy jooy ñu ngi jooy euh, ay poste de santé ñu ngi jooy ay ambulance ay jigéen di wasi ñeen teg ci ay ñu ngi jooy ay ay ay ñu ngi jooy euh, comme ni ñu koy waxee armée baa ngi jooy ay matériel gis nga armée sénégalaise kenn respecté wu ko mm-hmm. xam nga gis nga police sénégalaise ni mu mel amuñu benn jumtukaay xam da gis nga gis nga la gendarmerie mm-hmm. xam nga indépendance de la bi ñuy wax démocratie bu dellu ginnaaw réew ñu noot askan wu ñu noot xam nga loolu daal lañ jàng ni boobu léegi day gën a pire ah, day gën a pire dara dellul ginnaaw mm-hmm. léegi nag lii li nga xamante ni moom moo moo nekk lu fës ba ñëpp xam ko mooy que ni ak Abdoulaye Wade sax au amoon nañ asuk tuut c'est-à-dire on avait un peu amoon nañ tuuti démocratie amoon nañ tuuti benn benn benn boo xam ne amoon na Sénégal bi benn patriotisme boo xam ne panafricaniste boo xam nekkoon na mhm. am ku ne xam nag mhm. Macky dafa ñëw dindi ko maanaam mel ni ku yalwaan am fukki dërëm nga ñëw non seulement da nangu fukki yi nga dagg loxoom def ko kuuj mhm. mooy ki mu wax ki muy wax rek loolu daal lañ jàng ci 23 juin bi mais liñ ci mën a jël daal mooy que ñun ñu xam ni combat bi au fait commencé gul sax parce que ak Macky Sall combat bi commencé gul waaw loolu moom moo am solo. combat bi ñu ngi seet euh, boobu ba léegi yéen ngi xeex di ay manifestations euh, yooyu noonu nga xamante ne yéen a koy def ban yokkute ngeen ci gis li xamante ne yéen a koy xeex. non déjà xam nga am loo xam ne dafa dafa dafa jafe woon mooy pour Sénégalais yi comprendre que la jeunesse soit consciente fi mu toll nii loolu aussi am na ci solo ay jéego yu am solo yu ñu def Euh, constance peuple bi xam nañ léegi ñan ñoo constant dégg nga fu may waxee. Mhm. donc loolu rek gis nga loolu bu ko xeeb gis nga communication euh, li ñaan naan xel yi la ñuy taal xel yi tàkk nañ fi mu toll nii li des mooy action rek te incha allah ci lañ jëm. Mhm. te ndam bu leer lay jox Sénégal. te liggéey boobu noonu laataa ngeen ni dugg ci bopp nit ñi pour xam xam loolu lañ li nga xamante ne tey moom ngeen di xeex pour ñu comprendre que métti woon na lool. il nous a fallu beaucoup de temps. parce que dañ jàppoon ni ñii ñoo politiciens yi ñoo yem ba léegi sax am na ñoo xam ne ay intox yooyu ñii dañuy ut lu ñu am ñii dañuy jéem a ñii gëmuñu dara bu ñu gisee ay maintes fois foofu lañ tolloon mais léegi dépassé nañ ci beneen étape moo tax alhamdulilah may wax ni ñun dañu war a gën a góorgóorlu moom laay wax waa Y'en a marre moom wax Guy Marius Sagna moom laay wax ay ñoom Clédor Sène Dame Mbodj moom laay fexe ba sénégalais yi xam ne ñun on déterminé pour le Sénégal te comme toll nañu fa woon nag mooy day fexe ànd ak yi nag libéré Sénégal mm-hmm. ndax ah, ah, bi dis seen kaw de gis nga. parce que jàpp naa ni ni mu ko waxee rek euh, Macky Sall ñëwoon doon ñu xeexal lu mel nii. bi mu ñëwee toog comme ni nga ko waxee dafa répété wu waat. Mm-hmm. keneen ak keneen ndax Sénégalais tey duñ jàppaat loolu comme bi ngeen ñëwaatee tamit loolu day répété wu xam nga xam fi nekkoon di xeex. Mm-hmm. te tey ñu topp pouvoir bi ñun opportunité yi ñu amoon. yi mm-hmm. ñu am yëpp privilège yi nga xam mënoon nañ ko wan ko ginnaaw ñoom amuñu ko woon te biñ ko amee ñëpp gis nañ ko ko léegi nag la gars yi di gisee lu ñu musul gis mooy nit yoo xam duñu wor seen askan quoi waaw ay nit yoo xam ne dañoo am seen dañuy sóoraale seen diggante seen borom duñu lekk alal bu lewul ay nit yoo xam ne dañoo am lu ñu gëm quoi comme ay Mamadou ja parce que loolu aussi mooy Sénégal en réalité loolu mooy mooy Souleymane Baal loolu mooy Serigne Touba mooy Baye Niass mooy mooy mag ñi mooy jàngu bi mooy éthique mooy jikko yu baax mooy ceddo yi nga lu mu metti metti metti boo ñëwee bu ñu joxee suñu kàddu dañ koy sàmm boo ñu wooloo ñu sàmm kóolute bi loolu loolu loolu mooy Sénégal léegi nag dañ taloon ci moment boo xamante nii dafa amoon benn benn réeroog benn tasaaroo xamuñu kii et kii et qui fait quoi mm-hmm. léegi dépassé nañ loolu nag li des nag mooy ñu jàkkaarloog loolu ci fulla fayda mm-hmm. gérer ko ànd ak askan bi mm-hmm. libérer Sénégal mais mel na ni démb tamit li ngeen xeex lépp dafa am lu leen ci gën a ñor muy non au troisième mandat Macky Sall ci loolu la nekk du nit ci nekk ci troisième mandat nag man dama wax gars yi ni xeex bi man wax naa ko bu yàgg de gis nga man dama nga xool samay vidéo samay interview yu ma def yaa yaa yaa presque ay 6 moo tax nga wax ko lu yàgg danga gis ni kii ci tànk yooyu la nekk wala da nga gis ni kii pareegul pour bàyyi nguur gi. parce que du nit parce que seexuñu ko doomu aadama seexuñu ko ku am jom seexuñu ko ku am lu muy jomm parce que jom mooy ku am looy jomm seexuñu ko ku am ku am ku ku ku askanam non non non non moo tax ñun dafa laaj une détermination man ba ma gis man Macky Sall liir naa bu yàgg loolu si moom. mais sama waa ji ko jàpp imam imam bu deful dara nga xam ni deful dara pour lijjanti xaay ci tubaab nga jàpp ko tëj ko ñetti atu yàlla kooku nit nga c'est-à-dire ñooy soog a xam kan mooy Macky ñooy soog a jug a dabe xam nga ñun xeex mm. a bi rek mais ñun Macky Sall li mu njëkk a def 2011 2012 dañ ko fal 2013 la wor xale yi Colobane yi Abdoulaye Wade tëj xaley Colobane nañ ci ab manifestation Macky falu ci nguur gi wan ginnaaw xaley Colobane tëdd nañ quatre ans ci man ci loolu lañ ma njëkk a tëjee man defeere ma ñun depuis Macky Sall bi defee un an ci pouvoir bi ci lañ commencé du nit te ay yat ñoo koy jëlee ci pouvoir bi ci palais bi loolu il faut gars yi xam ko sequñu ko gor il faut le dire il faut avoir le courage de le dire ne fii di layam layam di wax lii nañ bàyyi loolu ñu wax essentiel ko seexal du ci palais bi ay yat a koy jëlee loolooy wax ji. mais ba tey yéen amagu leen gëm-gëm ni tey deux ans yi nga xamante ni tey moo ko fi dese bu jeexee dina taxaw ne sénégalais bokkuma ci li nga xamante ni tey moo di élection yi di ñëw yéen wala leen gëmagoo leen loolu ba tey ci moom waa xam nga yoon dafa am mm-hmm. yow tey su ma lay su ma su may man damay ma yóbbaale ma mm-hmm. ah, laa jëm Macky dafa jàdd te jàdd yi ay jëf la ñu gis c'est des faits dama def c'est des faits ça lu leer mm-hmm. lu tax kenn ñemewul wax ci troisième mandat bi ci ñi ànd ak moom lu tax mu jàpp télé bi corrompre en tout cas la majorité lu tax mu ne day day éliminer euh, kii euh, site internet yi lu tax mu ne day tëj internet bi lu tax lu tax mu interdit ay manifestation lu tax mu bëgg tey ne ku day rey Ousmane Sonko suul ko lu tax muy suqaliwaat dossier Barthélémy Dias lu tax mu ne mu mu mu téye Karim Wade lu tax mu té Khalifa pour mais attends ça dafa am yoon quoi yoon la ça il faut pas qu'on se voile la face le gars il est en train mi ngi programme am la yor ñun aussi dañu war a am suñu programme pour le dégager de là waruñu ko xaar c'est-à-dire man man man moo xaar mu yegg dafa am yoo xam ne waroo xaar mu yegg nit boo xamee ne kii ci sa kaw la jëm dalal ci kawam dalal ci kawam te waa ji suñu kaw la jëm suñu kaw la jëm ñi ko jaaxal mooy ñun ñi nga xam ñi ngi fi di xeex nekk nekk si diggante moom ak askan wi nga xamante ni respecté wu leen te ñun ñoo ko fitnaal te incha allah fitna yi day gën a tembare te duñ ko may dara ay gourdin moo koy jëlee ci palais bi ay gourdin moo koy jëlee ci palais bi te képp ku naan Macky Sall dañ koy bàyyi di kii la toroxal. man gëmoo man gëmoo parce que démocratie boobu moo ko njëkk institution yi moo ko a jalgati. respecté institution yi respecté constitution yi respecté wul gendarmerie respecté police respecté dara. ce te naa la benn affaire gendarmerie bëgguñ ko police bëgguñ ko sapeur yi moom dee ba nëpp moom. moom di ñaan euh, euh, bu dee gendarmerie maay moom ak police maay euh, tampi moom gendarmerie sapeur pompier moom kii maay. xam nga li ñu naan Fouta maay Fouta tampi may leen dañoo dee ñoom. dañoo dee c'est-à-dire donc pour wax la rek ni la juste pour expliquer ni la au fait réew mi instant amul benn buntu boo xamante ni wane na ni lii démocratie la wala kii nii jéemul nekk di nekk si troisième ci loolu la nekk. léegi loolu nag ñun ñoo ko recommencé waruñu xaar bu mu taxoon naan moom mooy kan bañ koy xaar mu naan non léegi defuma wala def naa wala oui ou j'ai dit du ma ne oui du ma ne non. pour lan pour lan ñuy xaar Macky di wax loolu pour lan ñu koy xaar te ñun ñu am suñu constitution mu wax lu leer yoo xam moom moo def réforme ñu defaraat constitution bi mm-hmm. ah dugg ci mais nee nañ waxante dëgg mm-hmm. lu tax ñu war a xaar Macky si loolu lu tax muy privé ay jeunes seen ko bëgg def delloo Sénégal jamonoy Rome César lu tax ñun ñu taxaw war ko seetaan ñun pays démocrate boo xamante alternance am na fi ba Abdoulaye Wade ni ko Abdou Diouf joxe nguur gi ñëpp gis nañ ko moom ni ko Abdoulaye Wade joxe nguur gi ñëpp gis nañ ko mais qu'on se dise la vérité moom mu ñëw bëgg fi nekk ne moom léegi daf ñuy mais loolu mënul nekk nga gis ay autorité Fouta di bind ay arrêté di interdire ay jeunes pour ñu solu xonk nous sommes nous sommes dans ce dans quel pays léegi lan la ñuy xaar ci loolu dañuy toog di seetaan Macky Sall nag ku ne ut yaat ñu dem jëlee Macky Sall ci bi loolooy wax loolu mooy wax ji ah ba tey rek doon ay kàddu yi nga xamante ni tamit ay kàddu Abdou Karim Gueye lañ ci li nga xamante ni tamit ñoom la ñuy gisee réew mi di ko doxee te ànduñu ci mu doon nag li nga xamante ni tamit nag wax na ko ngir delloo ci waat askan bi mais ba tey rek bu ñu génnee ci point boobu dañuy ñëw ci point bi nga xamante ni tey jàpp naa ni démb seetaan nga ko mu di émission boobu di Faram Facce confrontation bi fa amoon ci diggante maître El Hadj ak kilifa. waaw waaw kilifa ak maître El Hadj Diouf seetaan seetaan naa ko fajar gi bu ma jógee am na extrait yu ma gis quoi. gis naa ko ci net bi d'habitude man après fajar gi lay xoolaat émission yi quoi mais kilifa bi moo ko xamee ba léegi. Mhm. mosuma ko gis mu toog ci plateau mel noonu mu mel. kilifa mosuma ko dégg sax muy yóoxu nit yóoxu ko dégg mu def ko sérieusement quoi damay wax tey rek tax. parce mhm. que ànd naa kilifa ay mhm. mais xam ku mel ni kilifa ak maître El Hadj Diouf c'est kilifa El du nawleem quoi du nawleem parce que kilifa depuis vingt cinq ans ñu ngi koy jàpp ko tëj ndax Sénégal. calculer euh, li gouvernement bu ñëw li nga ko jàpp. waaw loolu lépp mm-hmm. ba bi ñu koy bi lañu simmi te musuma gis benn yoon bu muy kaas moom mm-hmm. pour ay xaram yuñ jàpp wala këram guñ tëj wala jabar doo jabaram bu feebar li muy kaas yëpp intérêt Sénégal la ñu koy tëj di ko dóor mook caat moom mm-hmm. yaana maar ñoom ñoo ko créé seen esprit la ñoom kon kooku munu El Hadj Diouf lan la defal Sénégal lan la ban a am rek ba kilifa di toog si plateau muy wax ba ñuy échanger ñoom ñaar man gis gisuma ko quoi comprendre nga bu baax fu ma man tey bu ma invité woon ak Me ma dem man du ma toog ak Me El Hadji Diouf parce que Sénégal dañuy xaar Me El Hadji def taati nañ pour ñu def pour ñu xam ne dafa dof quoi mais c'est un fou te sale boulot bii Macky Sall bëgg def yëpp ci Me El Hadji Diouf la koy jaarale. moom mooy corrompre yenn journalistes yi moom la ñuy jox yenn weccit yi mooy gérer affaire yu Me El moo koy def pour taxaw askan yëpp di ko di ko xool mu teg Adji Sarr mu jàkkaarloog Sénégalais yi naan ay daf may jaare ginnaaw daf ma seey ginnaaw Maître a def loolu parce que matul dafa sax pour tooga Maître El Hadji Diouf foofu parce que da ngay xoolee xam ne déjà lii fii lay mujj donc man boroom maay kilifa du ma dem ci plateau boobu damay Pape Ngagne mu boole ma keneen parce que Pape Ngagne Ndiagne boole ma keneen quoi man du du ma toog a Me El Hadj Diouf te sénégalais yi télé yi dañu war a bàyyi di invité di invité di invité Me El Hadj Diouf su laajee ñu répétition quoi ñu xam ni la quasi totalité maanaam presque 15 14 millions sénégalais bugguñu El Hadj Diouf ci télé yi bugguñu ko gis ci télé yi parce que c'est un fou qui parle te dafa am image yu mag am ay doom te am yoo xam du ko mën a wax parce que ñun dafa am lu ñuy sóoraale am lu ñuy jomm ñun am ay valeurs di ko kon El Hadj Diouf wax war ñu invité Maître El Hadji Diouf ci télé muy wax parce que dafa dof ab dof na kenn du ko teg ci plateau muy wax loolu rek loolu mooy wax ci quoi. loolu mooy wax ji mais bu ñu demee xool euh, ci débat bi nga xamante ne démb seqoon nañ ko moom ak kilifa bi ñu demee ba dugg ci li nga xamante ne di cadre nervi moom dafa jëlaat lépp ne opposants yi ñoo li nga xamante ne tey mooy nervi parce que ñoo taal këram ñoo làq yi nga xamante tamit aussi mooy TFM. non nga doon xaar mu wax ni nervi am ñun gis nañ nervi yi nga xamante ne aussi ñoo ànd ak euh, le président de la république loolu la tëb teg nañ seen bët mais pourquoi mu delluwaat ko opposant jàmbaar soo wax ci man ma xam ni gaynde nga loolu du si wax quoi man du ma toog ak dof pour a ni je suis intelligent dégg nga du tontu ay dof quoi maître El Hadji Diouf dof la le mot dof fuu ci boppam moo ko dal dañ ko yóbbu dalal xel faj ko wérul déggul ma état bi kenn même le gouvernement naw la woowuñ ko gouvernement bi koy jox job bi salte yi mu di ko def am na rôle yoo xam moom lañ koy jox duñ ko jox kenn benn rek du nangu jël rôle yi El Hadj Diouf di jël Macky Sall mbari tamit El Hadj Diouf la koy sëpp pour mu yenu ko kon kooku du ma wax ay waxam du ma ko wax imagine fang nga ngay weddi loolu ma si wax loolu man du ma si wax du ma wax ay waxu Me El Hadj

ñun ñu seetaan état du Sénégal du ñu tàqale ak policiers yi wala di indi problème du ñu mettre en mal avec la police et la gendarmerie la police les policiers et les gendarmes suñu déggaloon Macky Sall kon nervi du am comme ñoom ñooy joué rôle nervi est ce que dégg nga li ma la wax bu baax. mais moo tax ñu créé nervi gendarmerie pour loolu la moo tax général la moo tax ñu daax ko la moo tax Macky Sall dindi ko ci fonction bi noonu. wàccee ko si si si kii bi au commandement wu gendarmerie bi parce que accepté wul li Macky Sall bëgg def gendarmerie gendarmerie mënuñu am nit ku diñ ku mel ni Tine ah général bu mel mu œuvre ci gendarmerie service lu bare bari diñ gëm boppam papaam nekkoon ancien gendarme commandant gendarmerie nekk nit ku diñ gendarmerie xam ne kii noble la respecté gendarme respecté institution respecté corps bi Macky Sall ko daax ko ni nga yaakaar loolu na neex gendarme gendarme parce que moom dafa lu bëgg ko il faut pas ñu il faut nañu respecter corps yi quoi Macky Sall bu mënul ñàkk respecter corps yi ba pare ñun peuple bi aussi ñu ñàkk respecter corps yi nañu waxante dëgg policiers yi lu ñu mën ñu ngi koy def pour bañ a topp Macky Sall ci li muy def sama waa ji te man xam naa si dara ñaata la ma policiers yi arrêté ñaata la ñu gendarme yi arrêté donc nañ nit ñi xam ni bu tey gendarmerie bu fekkoon dañoo fayir ñoom ñooy nekk nervi ñoom ñooy dóor opposition bi ñoom ñooy dóor nit ñi ñooy ut ay yat gourné di jàpp ñi di dóor mais comme ñoom dañu diñ seen bopp bañ na duñ ko def alors moo tax ñoom ñu dem recruter ay bande pulaar yu tekkiwul dara ñu def le travail le sale boulot à leur place léegi nag gendarmerie ah, ordre ordre lay demee police ñoom ci ordre ordre demee léegi nag ñëpp mënuñu kilin quoi foog mu am ay vendu yooyu mënu ci ñàkk léegi bu fekkee ni génn nañ ñoom devoir dañ koy def mooy topp institution yi respecter Macky pas Macky en tant que Macky mais le président la République institution yi Sénégal lu mu laaj ñoom li nga xam ne agent assermenté na loolu la ñuy di ko respecter Macky Sall génn taxaw ne ne vous inquiétez pas c'était pas le cortège du président saaga leen te ñooñu ay ay jabar ndaw ay doom ndaw loolu gendarme dañ koy téye seen xol ay nit lañ doon j'ai des frères gendarmes sama waa ji on a des frères policiers ñoom la gën a sonn ci lii nii du ñu nelaw lekkuñu naanuñu donc kon peuple bu ñu bàyyi nañu invité di attaquer euh, homme de tenue yi. Mhm. parce que nervi yi ñoom niñ lan niñ ñu naqaree ñun noonu la leen naqaree ñoom. léegi ak ak doomu àll aadama ak yelleefam tey ban liggéey la ñu war a mën a xaar ci gendarme ak police ci yoonu nervi yi parce que yàpp naa ne demuñu police demuñu armée ba tey taxaw di dóor ñi nga xamante ne tamit ñooy sénégalais loolu ban rôle la ci police ak gendarme war a mën a taxawee. gendarme su intervenir après supérieur ne bàyyi lañ ko. kon du mujj fenn daal kon du mujj lañ àndal. parce que indépendance amul. indépendance de la justice bi ñuy wax indépendance su euh, euh, fait bi amul. procureur mooy patron gendarme gendarme yi. mooy par moom mooy jox mooy seen sëriñ bi. mooy jox réquisition ne leen def leen nangam ñu def ko. bu ñu bu gendarme day diñ respecté li muy def jàpp la yow nga def naka solul noonu. mais ce niveau moom moom du la xasee ba jébal yoon. moom moom dépassé def na liggéeyam. léegi yoon mais Madiambal Diagne fan la toll ak mandat dépôt bi anamu ana Madiambal Diagne man biñ ma mandat dépôt damaa génn sama kër fi fi ma man defee mandat dépôt weeru koor lañ ma fekk ma feebar ñu jàpp ma yóbbu ma di moom mandat dépôt mais ana ma jàmbal jaañ cest à moom laa bëgg a expliquer quoi donc kon loolu dama bëgg nga xam loolu nga foog nga foog neex na ay leen est-ce que nga foog ni donc il faut gars yi comprendre quoi il faut pas ngay diaboliser ñëpp parce que dafa am nit yoo xam dañu diiñ gëm li ñu xeex gëm seen tenue gëm li ñuy xeex gëm justice bi mais malheureusement dañu nekk président boo xamante ni du nitu dara gëmul dara respecté wul askan bi respecté wul réew mi intérêt lay xalaat topp tubaab ak ni nga xam ne quelque nit tuuti ñoo topp ñu jàpp réew mi di ko fowe moo tax ñun ñu war a kan la amal affaire suñu adversaire c'est pas police c'est pas la Sénégal benn problème am muy mon frère benn problème am muy donc nervi yi Macky nervi la lan mooy nervi mais ni sénégalais taxawee nag instant bi nag buñ ciy jugul bañ dem ba ne bu ñu jàppee nervi dañ koy rey wala ñu taal ko ndax loolu tamit est-ce que loolu tamit dina baax ci Sénégal mais loolu loolu moo loolu mooy njiit bu am kër gu parce que parce que ku fekkee ki nga xam mooy kilifa deful devoir am mais alors nit ñi jël seen matuwaay c'est ça mooy comme li ñu wax ci góor jigéen ñi rek moom moo toog i télé France ne carrément les homosexuels n'auront pas n'auront pas de problème avec le gouvernement mais amuñu problème overall mais ñun noo koy gérer góor jigéen bu ñu jàpp dañu lay taal la lakk parce que comme ñun suñuy kilifa defuñu seen i devoir ñun ñu def suñuy devoir ñun en tant que citoyen sénégalais en tant que peuple loolu moo ñuy dal ci rek loolu kese la kër bu amul kilifa rek ñeneen ku nekk gérer sa bopp ku nekk noonu la demee ah, loolu tamit doon ay kàddu yu am solo mais nag